Ah, eu vou fazer, eu vou fazer. euh, bienvenue euh, sur la page du président Ousmane Sonko là actuellement euh, euh, nous allons Finir à maintenir Mon maudit foire donc waaw faire. Eh, Je Pertil fan la yëgoon. ah dem cootu bële. rek. duñ leen mën a waaw mi ngi noonu président Ousmane Sonko mi ngi noonu euh, di dem euh, di bëgg a génn fi nga xamante ni euh, moom moo di. donc c'est un peu nous sommes fi nga maintenir Modi, moo di euh, cité Kër le président Ousmane Sonko euh, mi ngi waaj a génn euh, di dem fi nga xamante Saladam le salon de de l'élevage salon international de l'élevage hein. Fofle la jëm en hommage à notre frère Fadilou Keïta bi nga maintenir ni moom moo le président de l'ADAM donc c'est un frère boo xamante passionné par l'élevage passionné par li nga xamante ni l'adum, di laadum président ou Adam euh, président Ousmane Sonko fasciné, donc euh, dox diggante de bi dem fi nga xamanteni mom salon Adam le dispositif sécuritaire mi assez important toujours malgré que li nga xamanteni ni euh, officialiser nañ report kii bi report li nga xamanteni mom moom le procès au 16 février mais le dispositif est toujours présent donc tout avancer dit gars yi. non non. attention. taxawal toog. waaw. cher internaute. donc mi ngi noonu.

Euh, de l'élevage bi nga xamante ni euh, Adam association bi nga xamante ni Fadilou Keita mom mo nek le président un passionné de l'élevage et surtout du ladum euh, mom moy président bi waye yalla def ne jamono yii nii mi ngi nek fi nga xamante ni rëbës gars japp ko ci lo xamante ni vraiment c'est c'est une injustice totale Total et entière euh, président Ousmane Sonko du fait de l'école de nga xamante ni de événement bu hein, et lui-même étant un passionné de l'élevage président Ousmane Sonko fas de visiter

Andak ak euh, ñi nga son dispositif euh, sécuritaire le dispositif est toujours là hein, policier yaangi ni malgré que comme ni ma ko waxee tout à l'heure euh, gaay yi jël nañ dogal ñu ni yóbbu nañu renvoyer nañ le procès ba fi li nga xamanteni mom modi moo di le ba li xam le 16 février euh, inshallah pour ñu mëna taxaw concernant l'affaire Mame Mbaye donc euh, comme ni ma len ko euh, président Ousmane Sonko après le matin le tour du voisinage auprès de ses voisins nga xamante ñoo président Ousmane Sonko ah, ba fini ci après avoir euh, été en sympathie en harmonie avec Wakergi, avec sympathisants yu Union yi Il noonu yëpp ci pour lui témoigner affection considération et lui renouveler li la détermination qu'ils ont à l'accompagner euh, léegi nii à 16 h le président Ousmane Sonko mi ngi bientôt 17 h d'ailleurs euh, mi ngi nii fas yéene dem fi nga au niveau de la foire euh, le salon international euh, de l'élevage organisé par euh, ADAM ADAM Moudi association boo xamante président Fadilou Keita moom mooy président Fadilou Keita di suñu frère au sein du suñu frère patriote au sein du parti PASTEF ouais Fadilou Keita nekk le président de l'ADAM donc Mouy un passionné de l'élevage hein, comme le président bëggee moom itam noonu la bëggee le li nga président fas dem

waaw yëkkati mu sell baa ngi. tapoter de bi partager live partager leen live bi kii la Sénégalais yi mérite nga xam ne mooy kenn mooy éñapp mooy nit ki nanga mu ngi noonu waaw kenn day éñapp nit ki nanga waaw kay kii mooy dund dëgg gars yi partager leen bi ñëpp jot ci waaw ñu ngi baax baax ñu ngi waa Tambacounda ñu ngi nuyu waa Fouta ziar bu baax di ñaanal jàmm salaam fan yaram ak ñu gis nit di pour ak ki nga président Ousmane Sonko président Ousmane Ousmane Sonko mi ngi dit tout à l'heure le président Ousmane Sonko après sa promenade le matin Euh, Fini il a fait le tour du voisinage euh, dans le quartier Cité Ker Gorgi, Cité Gorgi, euh, son quartier de résidence le président Ousmane Sonko dans cet après-midi a décidé d'aller rendre visite d'aller visiter le salon international de l'élevage consacré à l'amélioration des races sénégalaises et pour cela aussi il faut il faut rappeler que salon que le salon international de l'élevage est organisé par l'ADAM une association à la euh, euh, Fadilou Keita l'association euh, dont Fadilou Keïta dirige les destinées depuis presque un an. Fadilou Keita, notre frère patriote qui se trouve présentement dans les liens de la détention, hein, victime d'une arrestation arbitraire. Et c'est en hommage ou bien même en honneur même euh, de ce Fadilou Keita, du frère Fadilou Keita que le président euh, Ousmane Sonko a décidé euh, d'aller rendre, d'aller visiter le, salon international de l'élevage qui se tient présentement au niveau de la foire de Dakar. seen frère Diallo mau fa nekk Diallo mikro, mikro, bi dafa mikro. micro yow président mi ngi noonu yàqu non pas mi ngi noonu vous voyez un peu le dispositif sécuritaire bi ngi noonu ci suufu pont bi nga xamante ni euh, moom moo bordé le quartier euh, de le quartier euh, de cité Keur Gorgui mi ngi noonu jël nañ VDN bi direction comme j'ai dit tout à l'heure foire ba parce que le président Ousmane Sonko daa fas yéene wane waat wala rem ak ki nga xamante ni moom moo di Fadilou Keita Fadilou Keita di diriger association bi nga xamante ni moom moo tudd Adam ñoom ñoo organiser le salon international ñoom ñoo dirigé le salon international de l'élevage donc organisé et le président Ousmane Sonko moom décidé dem seeta dem visiter salon donc ci taxway bobu noonu la ñu nekk yéen ngi suivre li nga xamanteni modi live bi ah, ñoo ngi à hauteur romb nañ Sonatel noonu ñoo ngi avancer wala dem fi nga xamanteni ni ah, modi ah, foire fi nga xamanteni modi le salon international de l'élevage moom moom moo avec euh, l'association Adam association Adam boobu ki nga xamante ni moom euh, président euh, Fadilou Keita moom moo koy diriger Fadilou Keita di coordonnateur li nga xamante ni Kera moo di coordonnateur eh, moo di coordonnateur Nemmeeku Tuura donc moom itam di président association boobu tuddoo Adam bi nga xamante ni moom organiser fa salon boobu di am ca fois président Ousmane Sonko fas yéene dem foofu euh, non seulement visiter ko parce que moom ku bëgg euh, li nga xamante ni moo di càmm la ak élevage waaye itam président Ousmane Sonko da di nit boo xamante ne itam euh, ku am wóllëre la donc comme ku Fadilou Keita yàlla def na ne mi ngi ci euh, dañu ngi ñu jàpp actuellement de manière arbitraire d'ailleurs injustement lañ ko jàpp ñu tëj ko ci prison bi nga xamante ne moom moo di rëbës président fas yéene euh, dem seeti ay ñoñam seeti ay xaritu Fadilou Keita dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay collègue Fadilou Keita toute la filière filière bi nga xamante ni moo di fi nekk ci amélioration des races euh, sénégalaises ci mbirum élevage. Oh, pas reçu. woote na ku moom li n'a pas reçu. deux. moom portable bi. kon Assane sama sa. lan la portable bi la wala kii bi. Assane sama sa. lan la téléphone la. téléphone bi ah. téléphone téléphone. téléphone ñu koy far ñu koy far. Fouti mi ngi koy jël mi ngi koy jël. Fouti mi ngi koy far mi ngi koy far. boo boo bay boo bay gannaaw li ngeen gannaaw li ngeen xaar xaar. waaw Fouti mi ngi koy far. bank la dañ dem naka mu tahu? taxawal jarul bank rek la wax ko ko kii boo bank la garaawul jarul ngeen taxaw lii 10 000 lay jar ah asura mo ko kau. dafa jatul ko ñu dem yaqalu ba ñoom xamuñu ne ñu nous nous euh, chers internautes boo leen live bi nga euh, live ou euh, page du président Ousmane Sonko. ñongi eh, fi nga xamanteni eh, modi yoon bi jëm foire di len fatali ni président Ousmane Sonko mom mo fasiyene dem visiter eh, li nga xamanteni mom modi salon international de l'élevage organisé par ñi nga xamanteni ñom ñodi wa Adam Adam itam di association bu am solo ci réew mi di liggé ci li nga xamanteni modi di amélioration wu race yi ñi yar fi ni ci Sénégal waye itam président Ousmane Sonko day dem visiter ji ñi nga xamante ni ñoo di ñooñ ak ay xarit euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ak ki nga xamante ni moom moo di Fadilou Keita Fadilou Keita di coordonnateur u Nemmeeku Tour di itam un frère patriote jege lool ki nga xamante ni moom moo di président Ousmane Sonko donc euh, président Ousmane Sonko fas yéene wane wëllëreem ak Fadilou Keita ndax euh, moom mooy président Adam Adam di organiser le salon international de l'élevage fële ca foire di nit boo xamante ne ku bëgg li nga xamante ni moom ni càmm ak amélioration des races et président Ousmane Sonko moom itam ku bëgg càmm la bëgg yar gi moom itam mu nekk ci euh, loolu moo tax tey nii ñu ngi jëm destination foire pour visiter ji le salon euh, bi nga xamante ni moom moo di salon Saladam waa Adam waa Adam di ko def.

nonu Jakarta ay ñew nañ Jakarta ay ñew nañ vraiment merci fii la boo gën a jël jëlal ko jëlal ko président yi

yaa ngi xaar yoon bu baax. dóor yi sax ñu ngi xaar yoon. kooka la. spécial ay Louga. ñu ngi yéene yéen ñaar yéen ñaar. gars yi dafa leen ay kër quoi. doom waa sant ça va incha allah naka ma sant kay ça va bien

ci li nga xamante ni moom moo di euh, euh, lu jóge dans euh, li nga xamante ni moo jógee ci cet état politique mais itam li nga xamante ne gars yi ñu nekk ci ay affaires yoo xam ne ñu ñaaju dul jeex président Ousmane Sonko fas tey jamono yii nii génn dem seetaan yi Euh, dem euh, jàkkaarloo dem saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk salon Saladam euh, Saladam di salon bi nga xamante ni moom mooy salon bi ñu jagleel mbiru élevage fii nii ci foire bi waaye Saladam itam buñ ko waxee xel yëpp dem ci ki nga xamante ni moo di le frère fa Keita Fadilou Keita bi nga xamante ne moom mooy coordonnateur Nemmeeku Tour jege lool ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko waaye jamono jii nii ñuy wax Euh, président euh, Fadilou di président ñi nga xamanteni ni association Adam Adam di organiser salon international de l'élevage président man Sonko fas yéene euh, dem nonu sa fonté ak ay ñoñam fonté ak ay nitam ah représenté ko ci li nga xamanteni modi salon bobu ndax ñep xamna nañu jamono yi ni de manière injuste la ñu jàpp ci ki nga xamante ni moom moo di Fadilou euh, mi ngi ca prison bu ñuy naan rëbës waaye dañ koo jàpp de manière injuste et de manière euh, arbitraire euh, won ko jaay ko doole ah, tëj ko tey président fas yéene wane wëllëreem ak Fadilou wane wëllëreem ak filière bi nga xamante ni mooy filière boobu ñëpp nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci élevage ndax moom ci boppam ku bëgg élevage la ku ko xam-xam ni ku bëgg élevage la président Ousmane Sonko mi ngi nii léegi ñu àgg fi nga xamante ni moom moo di foire fa lay boobu noonu

ñoo ngi noonu foire agsi nañ foire président Ousmane Sonko fas yéene euh, visiter li nga xamante ni moom moo di salon bi xamante ni moo di salon international de l'élevage di salon boo xamante euh, bu jëlee rek <laughs> di salon boo xamante ne bu am solo la waaye di fàttali ni euh, non seulement président moom ku bëgg élevage la waaye itam wëllëre gi mu am ak ki nga xamante ne moom moo di Fadilou Keita Fadilou Keita nek président Adam association bi nga xamanteni ñom ñoy eh, def li nga xamanteni modi di salon bi ñoo ngi ni dugg eh, foire président Ousmane Sonko di aski aksi ah nit ñi di génn di ko teeru moto yaangi nonu noonu ah, donc li la eh, muy lo xamanteni ci bëss bu mel ni tay ñi wax waxi procès kër sa kër gi yëpp kër goor gi ah, ak fepp fi nga xamanteni modi Dakar ñu barricade ko président Ousmane Sonko bi mu defee doxantom ba paré mu ni déedéet mom du tok te dem fi nga xamante ni moom moo di euh, foire ah ngir wane wëllëreem ak Fadilou Keita. saa ne lay génne gauche. ada bi nu muy def jàll dem sam kóol kotom kotom day dugg kotom day dugg kotom day Go, go, go! ah Bathie il est là ah. waaw waaw waaw. waaw waaw. Abass. waaw mu ngi ci biir boo boo boo Abass la page du président un message à incha allah. merci Abbas. merci Abbas.

it, hold it, hold it, hold it. Come on. à la 14e édition du Tournoi international de l'élevage.

Bravo! कदम गए bàyyi lu taxaw loxo yi ngeen téye. waaw mais mun nga avancer il faut yéen ngeen avancer yéen ñi fi nekk

jàpp ngir yàlla rek jàpp waaw ñu ngi wax man loolu laa ngi gën bu la neexee amul problème defal lu la neex defal lu la neex génn dem ñii la ñu war a buur mais pas ñii ñii la ñu war a buur Fal, avanse nan, fal. Nan, go! Nan, nan, nan, nan. Yeah.

yëpp yóbbaale. jëlaat xar yëpp yóbbaale jëlaat xar yëpp yóbbaale. xar yëpp yóbbaale. C'est ça. On continue. Momo. Momo. Eh, Momo. Président xale macha allah. président moom biir président xale. waaw yoroo biir waaw walaay. isa. président na bëgg rek. xarit ay millions lañ def benn combat yi ñëw. walaay ci lu bëgg. bu ko neex bu ko neex si bopp yëpp. Omar Omar Omar Omar. pour la sànq nee naa la si xarit la ñu dëkkee. ok waaw kay lii moom kii mooy suñu président. jërëjëf jërëjëf. waaw da ngeen dox s'il te plaît. da ngeen pousse mu quoi. ah su ma déggoon nii damay sori damay damay sori. pardon lu garaaw garaaw. benn stand la. waaw nañ dem jël jël benn. garaaw. doo doxee côté bi yaa. on avance on avance. moytu leen ndox mi ndox mi. moytu leen ndox mi moytu leen ndox mi. yow reculer reculer. reculer reculer. avancé avancé. grand kii ñun lay topp. ñun ñoo koy yóbbu ñun ñoo koy jiite. waaw d'accord moo tax ñu laaj. avancé avancé avancé.

Enchaîné Aour Bay Jora rafal naa ni pass pass la mais wàccal kii non non ba bari dañ ngi ñu dem ngi ci pass ñu ngi pass ñu man Dernier box, à droite. Dernier box. Jimmy, oui. Allez, go. Hey, wait. Ini dah hari, ini dah hari. Kenapa kita pernah ada ni? allez ayca un peu de recul la mu gaaw un peu de recul la mu gaaw grand mënul yàq rek fii dafa bëri nit non non mënul yàq quand tout le monde converge vers une seule personne kay monsieur le maire oui oui Abbas Abbas Não, nem vai ver, nem vai ver. Não, não. Não, não. No, no te quedes, no, no te quedes. No, tienes que... ¿Cómo? ¿Cómo? olha, bi ko ñu ko leer ko leen ne mooy ya hein c'est qui c'est dangereux ñu leen bëgg ko d'accord olha. Olha Baba, Baba, Baba, Baba, doucement rek arrière arrière arrière arrière

Tout de poitrine, 35 ans.

Gel gel gel. Maşallah. İslam. Buraya vur. Buraya vur. Buraya vur. Buraya vur. Şaban hangi? Kadar duyma ya. Var hangi mi? Kadre bu ha? Baba no, hala bu ha. Sağ ol. Sağ ol.

lay géej gi am na ay dimanche dama xaaral pare Thank you.

donc il faut que boobu travail bi et sécuriser ça. li ñu def ba jéem a jot ñu ne Sénégalais. parce que c' est pas évident. les Sénégalais au travail. mais après. Ne de bu? Eyvah sen. Eyvah sen.

Même monsieur Laden Mayo. Même monsieur le Brasil! São Paulo! voilà. arrière leen bu baax journaliste yi da ngeen ko toog torop. ñu daan ñu daan ñu daan ñu daan Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Allez, avancez s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Escalier, escalier. Regarde, Calmez-vous, s'il vous plaît. Même Ada. laa bëgg am quoi moo tax. non non après nii lañ jëm. Awaa ah, daala ye eh. Dah, kat kat mungkin sih. Sangka! Perezi! Você câmera rápida. Grazie.

wul jaay wul jaay nee sa caméra bi tuuti waay. waaw am taw. fës. waaye da ngay ñëw téléphone bi. am am am am jox ko jox ko téléphone. wuy wu wu wu jox ko. voilà merci. merci.

踢了！踢了！踢了！ yow la ñuy jox Sénégal de Sénégal yaa koy dirigé de yaa koy dirigé incha allah. jërëjëf jërëjëf

waaw waaw. nag bi sax da ko dégg. yaa ngi yàq yaa ngi yàq suñu suñu jot. Sonko. yaa ngi yàq suñu suñu suñu. Sonko. Sonko. ñoom ñu ngi yàq programme bi ñu xaar xaaral soxna si non non bi kii mer yow gasit gasit gasit non non mën naa ko dawal dem ci kanam dama ci kanam dama ci kanam Premida! Premida!

Oui, oui, oui. Président. Oui, oui, oui. Garde ta garde Garde ta garde Garde ta garde Brasil! C'est bon. C'est bien là. Jaase. Jaase. Continue.

c'est bon jël leen ndey ko mu ñëw. c'est bon c'est bon c'est bon ñaar c'est bon c'est bon.

asu asu xool ma asu asu kaw la ko def asu gerte ma. ah li ko ji asu raa kaw la ko mel ak yow. asu bi macha allah waaw dèjà dama ne asu xoolal nit ñi. alhamdulilah bi ak bëgg soxal bëgg yow bi. borom drapeau baa ngi. ak wóor ak wóor. ak wóor. Gracias. loolu mbégte la. ndeysaan ndeysaan. waa Ndawale Sow. waaw. Gracias. Mën na yàlla anda andulu andulu per monde opal andulu andulu andulu no per monde opal ngejo per monde opal opal opal ngejo oh masyaallah meridional lu ngol Ya, ya. Insyaallah. Kamera